xam-xam di gannaay bi gëna mag ngir doxal àdduna moo waral ñi jàng war ko defee ci anam yi gën loolu tax Mamadou jaxate ñu koy woowee Junior Diakhaté Gningue di kat xaaratul kenn ci taxawu école yi soxla ak defaraat tàmbalee ci liggéeyam siiw ci réseaux sociaux yi tax njiitu lycée Ousmane Sembène bu Yoff ak i gem woo ko ngir mu defaraat ay salle de classe yu nekkoon ci anam yu doy waar. école bi nga xam ni ñu ngi ko sañ ci 1986 mu nekk lycée 2015 fukk ak ñaari classe ñoo baax ci fanweer ak ñett yi mu am junior ak ñi mu àndal jëmmalaat juróom benn yi ci lu matul fukki fan ngir xale yi mën fa defee examen BFEM ci altine ji ñu jëm. bi fa Dakaractu demee ci talaata yamook juróom-ñetti fan ci weeru septembre fekk nañu ñu teg zinc yi installé courant bi teggi fenêtre yu màgget yi ba war cee tegaat yu bees loolu yépp mu def ko ànd kook sénégalais yi tibb ci seen gafa junior ñiñ ci xam ne ne jéemu la def wàlli nguur gi déjà man enseignant la créé en main publique maa ngi ci école publique euh, xam naa système bi nu muy doxee tey direction bi tudd la direction de la construction scolaire mënul def école Sénégal yépp te école Sénégal yi sen yi nek Sénégal yépp public yi dañu am ay problème am ay jafé jafé amna yo xamné nak ne problème dafa urgent am ño xamné sen problème du urgence ñun dañu ñëw juste pour dimbali autorité bi pour mu def suñu part mais ñëwuñu substituer ci mom liggéey bi muy def parce que ñun mënuñoo matalé lépp tay buma la né 43 école ñu ngi ñuy xaar parce que ay nit dañu gis modèle bi ay jeunes né ah ñun ka dañu bëgg déployer duplier modèle bi suñu dëkk nga xamné day doon ben engagement communautaire de proximité duñu xaar dara dañuy def te tax lool motax ñukay def way def ñu nangu place nguur gi parce que amuñu doole nguur gi. def te yàlla tax bi ay ndaw gis ci seen bop ba tax ñu ñëw and ak mom ci liggéey bi cierno Dia ci la bokk. comme guddi bi laay liggéey damay guddee wàcc 3 h wala 4 h du matin weekend bi ça dépend.

goor baax na jigéen baax na ñoo tax ñu ñew japp ci gën ko jappalé nga xamni suñu borom jigen yene bu ko gisé dinañ ñew aussi japp ci liggéey bi affaire bi gëna gaaw. ñi doon jang ci école bi da suñu ginnaw Eliman Beng ci ñom la bok ñu fekk ko muy peinture fenêtre yu bees yi muy xamle ni junior dafa saxal ni sen lanc aw réellement ñu dool suñu xalaat la suñu xalaat bu njëkk woon ñu ñu ngi si nekkoon xalaatoon nañ ci amon nañ ci ay projet yu bari pour def ko deux effets nak moyen moñu ñu won quoi mais instant yii nii ñu ñu ngi ñu ngi defar bu baax parce que lii suñu suñu suñu rôle la waroon doon daal en tout cas dañu gis ne moom mu ñëw taxaw def xaarul kenn léegi ñun si lañ ñëw jàppale ko ñu ko mën a jàppale rek jàppale ko si liggéey bi. Mouhamadou Moustapha Ndir moom élève la di jàngee ci école bi nekk ci classe troisième mbégteem ci liggéey bi foo ko àpp weesu na ko li ko waral mooy. avant lii euh, gisoon nañ ne zinc yi normal lool dañ daan def cours. naaj yi duñu tàppe bu daan taw ndox mi daan dugg ci classe yi des fois sax duñ mën a def cours mais bi ngeen fi ñëwee ba léegi seetlu nañ ne affaire yi changé na quoi te tamit jox ngeen jëmm école bi quoi peinture yi nii yëpp instant yi ku jugee fële boo ñëwee da lay attiré te avant loolu noonu yii yëpp amul fa woon quoi kon gis nañ ne daal liggéey bi rafet na trop te tamit dañuy li dañuy gën a motiver pour ñu gën fi mën a am temps di ñëw di réviser et tout ça. taxawaay bi Junior Diakhaté ak ñi ko wuyusi ci lu ni mel war a am jeexital bu ñu sukkandikoo ci Awa Ndiaye Sarr di proviseur u lycée bi. si suñu njàngale ñu jàngal xale yi engagement citoyen ñu ngi koy def sax mais ñu gën ko yokkale def ko cours mu nekk benn cours comme ni nga defee cours anglais cours leneen prof histoire géographie xam nga daañu koy def mais ñu gën ko saxal fii xale yi xam lan mooy droit. xam nga toujours bu ñu ñëwee dañuy wax sama droit madame tey fii amul lampe nag mais ñoom tam lan mooy seen devoir

lu melni dal di koy démultiplier fiñ dekk baña xaar nguur gi pour mëna soulager population parce que tay ñun réew mi daf ñoo jox lepp enseignement public ay hôpitaux public jot nañu delo réew mi dara defaluñ ko suñu bopp defaluñ ko njitu réew mi defaluñ ko keneen defal réew mi lañ koy defal defaluñ ko benn nit donc lu way def rek pour réew mi jappal ni say dom ak say sitaati set yi ngi koy defal ñom ñoo tang koy def. Junior Jaxate bëgg bok ci ñi defal réewam tay baña xaar lu ko réewam di defal. tax liggéey bi mu amal fii ci lycée Yoff mu bëgg ko wëyal ci lu ëpp ñeent fukki école ci biir Sénégal